ginnaaw bi ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonentem boobu sallallahu alayhi wa sallam ñoo leen di nuyu nuyoo bu sel boobu te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu boobu rek ñu koy jaarale ci suñu sëriñ bi suñu kilifa gi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ko ziyaare di ndokkeel bu baax a baax a baax di ñaan taxaw gi mu taxaw ak positif bi mu am ak yéene ji mu am ci bëgg a liggéeyal maam ja Cheikh Balla Thioro Mbacke yàlla na ko ci yàlla defalu kawe njortam te nu ànd ko ak moom di leen ziar bu baax a baax rek di jël ziar boobu ak nuyoo bi di ko teg ci loxoom mu leen ñu ko ci biir groupe bi yépp góor yàlla yeeg borom xam-xam yi ak soxna yi waaye tamit di gën a ndokkeel borom xam-xam yi bu baax a baax yi nekk ci biir mel ni sunu mag jooju sëriñ Diir eh, taxawaay bu am solo bim taxaw ci biir liggéey bi ak yittewoo gi mu ko tamit léeg te itam mënu ci jox ay leçon yu am solo yoo xam ni wax dëgg yàlla noo ngi ci yokkoo bu baax a baax di ci tàbbalit ay laaj yoo xam ne yii yu am am solo la yoo xam ne yii saa ci jote rek eh, dañu ci dolle ko bu baax a baax di ko ndokkeel moom itamit di jël ziar boobu néew boobu moom itam mu jottali ñu ko borom xam-xam yépp yi nekk ci biir groupe bi suñu xaadim ñi ngi ñu leen di ziar bu baax a baax ci taxawaay bi ak yittewoo gi sëriñ Mouhamadou Diouf sëriñ Abdoul Ahad Ndiaye sëriñ Cheikh Gann sëriñ euh, Habibullahi ñi Eh, sëriñ Badara Ndiaye sëriñ Mor Badiane tuuba Samba Faye borom xikmatul yawmi ñoo ngi leen di sëriñ Mouhamad Diouf ñoo leen di ndokkeel bu baax a baax di ziyaare soxna yi tamit wax dëgg yàlla ñoom itam xam naa sunu waajur woowu muy soxna Aysatu Diop moomu yaayu xaadim oustaz ñoo koy ziyaar bu baax baax di ko ndokkeel di jël sunu siyaar ak ab sunu ndokk yëpp moom itam di ko teg ci loxoom di ko ñaan mu jàllal ne ko mboolem soxna yi nekk ci biir liggéey bi yépp wax dëgg yàlla am nañ te lool ak xel mu dal wax dëgg yàlla bu ñu gisee jëmm yu mel noonu di ñëw di tàbbis ci liggéey bu mel nii nga xam ne daanaka mën nañ ne ay gone rek li ci ëpp ñoo ko seq waaye tamit euh, jéem liggéey Sëriñ Tuubaa moom te defe naa liggéey bi ku ko seetlu euh, gis ni muy doxee xam ni muy doxee li nga xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa bu raxul dara la kon képp koo xam ne kii daal am nga yéene bëggal liggéeyal maam Xaadimu Rasuul lii moom wenn waar wu yaatu la ci li nga xam ne lii moom la ñu liggéey maam Xaadimu Rasuul kon noo ngi ciy gën a soññ suñ bopp rek da ci soññ ñëpp rek góor jigéen mag ak ku mën a doon rek nga ñëw tàbbi si ci ndax lu mbooloo mi gën a bari lu mu gën a kii rek jotaay bi di gën a jëmm liggéey bi itam di gën a yomb di gën a jàppandi di gën a yaatu kon ñuy ndokkeel it euh, Mouhamad Ngom moom ñi ngi euh, jëwriñu liggéey moom itam ci taxawaayam ak yittewoom wax dëgg yàlla te ko ñaane yàlla gën koo dëgëral ba moom itamit euh, yéene ji mu am ak bëgg-bëgg bi nga xam ne bi moom la bëgg ngir jàppandal liggéey bi ci fànn gu mën a doon rek loola yàlla na ci yàlla def lu kaw suñ jot di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñoo leen di ziyaar yéen ñëpp di leen ndokkeel kon ñuy ñu dellusiwaat ak yéen rek ci jataay bu am solo bi nga xam ne bii moom lañuy wax euh, al fatwa te mooy mbokk yi di am ay laaj yu ñu rotal ci biir groupe bi ñu féetale loolu ak yennati mbokk yi ci biir muy borom xam yi ñuy war di saytu liggéey boobu di ci jéem a nam bi di ci jéem a tontu ko defee kon dañu daal di ñëw duggaat ci liggéey boobu rek comme ni nga xam ne lii noonu la ko mbokk yi defee rek euh, nga xam ne maanaam ñoo ni gën a leeralaatal waxtaan yi saa bu jàllee ak émission bu mu ci mën a doon noonu ko mbokk yi defee wax dëgg yàlla rafetlu nañ ko lool daal di leen di ko ci ñoom itam ñu ni ci gën a jàppale bu baax a baax a baax su ko defee laaj bi ñu jëkk am tey euh, mu ngi jóge ci soxna Xadi Ñang ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ko ndokkeel moom itam wax dëgg yàlla ci posteex bu ma am ak bëgg lu baax euh, nekk ci biir liggéey bi wax dëgg liggéey bi teel ko lool ngir jëm liggéey bu xaadim rasul la rek moom loolu koy teel moo am ci ak bëgg ak yittewoo lool tey nag euh, dafa laaj laaj bu am solo boo xam ne bii dafa aju ci lu wenn tur woo xam ne bii ci tur yi yàlla yëla bokk ñu koy wax al baax yi moom soxna si dafay laaj ne kayfa yustaamalu smuhu taala albaaxi lil jalbi awi dafa'i day laaj ne waaw tur yi nga xam ne yu albaaxi la te muy benn tur ci yi nga xam ne yu sell yi la bokk mu ne waaw koo xam ne ki da nga bëgg jëfandikoo ngir di ci xëcc njariñ nan nga koy defee waaye tamit ku koy bëgg jëfandikoo ngir di ca jiñ ay lor nan nga war a mën a jëfandikoo turu sell wii ñu ko ci wax ne ko bokk na ci njariñu tur euh, mooy dafa wax ne fa xazul abdi min hadha al ismi ida akthara min dikrihi kaashafahu llahu bil xaqaiqi al baaxiyati wa ashhadahu al athar fa yafirru ila al baaxi bil ashwaq bokk na ci lenn ci njariñu tur jaam bi nga xam ne bii maanaam dafa saxoo di tudd tur lu baree baree bari maanaam di wax yaa baaxi yaa baaxi maanaam mu di ci def ay zikkar yu baree bari di ko tudd day ne ne su ko dee def te yàlla rek tax mu sellal ko def ko ak jaamu yàlla dina dem ba yàlla dina ko wuññil ay dëgg yoo xam ni yu des la yoo xam ne da koy wér lii mooy dëgg la boo xam ne gii moom lu dul jeex la ndax dëgg moom boo xasee nekk rek dootul jeex waaye tamit yàlla dina ko seereloo ay jeextal yoo xam ne maanaam da koy won ci àdduna yoo xam ne yi da koy leer nañ lii moom luy jeex la su ko defee ñaari tomb yi muy benn bi yàlla won ko ay dëgg yi nga xam ni yu des la bu boobaa dina ci mën a jàpp sukkandiku ci mën a taxaw ca lam ca taxawee waaye tamit buñ ko seere la won ko li nga xam ne ay jeexta la yoo xam ne day dem ba jeex ci àdduna gi loolu tamit dina ci mën a sukkandiku ba xam nam ci taxe ba lépp loo xam ne lii yi mu war a moytu ca yooyu loolu ngir xam ne day jeex maanaam mu mën a moytu loola ne ne nag ñaari tomb yi su ci jàmm tolloo fa yafirru ilal baaxi bil ashwaq ne ne day daal di daw jëm ci borom turu mag wii muy albaaxi te mooy aji des ji nga xam ne du fi jóg mukk nga xam ne léppam day wëlbatiku daal di jublu ca yàlla nga xam ne léppam yàlla lay doon la ca nëbboog la ca feeñ lépp su ko defee loolu itam bëgg gu muy am ci xolam mooy sabab loolu mu nekk ci xoolam nga xam ne yàlla rek moo doo moo dee di ko yitteel bokk na ci itam mu ne man akthara min dikrihi fataha allahu lahu sirral baqaayi fil xayaati wa baynal mawjudaati wa yakunu muxlisan fi ibadatihi lillahi taala dana itam comme lam doon wax fee rek kuy bari daal looy tudd tudd itam mooy albaax yi yàlla dina ko ubbil secret boobu ñuy wax sec lenn ci secret yi tur wi nga xam ne da koy am ci ak dundam waaye tamit yàlla dina ko ubbil ci ba lenn ci secret woowu loo xam ne lii ci wàllu mbindeef li li yàlla bind la aju muy mu di am mu di cay am ay am xam yu xóot xóot itam ne ne bokk na ci secret yi ci ki koy sikkal lu baree bari su ko dee def day nekk ku sellal koo xam ne kii jaamu ko muy jaamu yàlla maanaam da koy jaamu rek te yàlla tax nga xam ne du ca boole keneen euh, loolu mooy li gën a am solo ci jaam bi mu fexe ba ab xolam sell ba jaamu gi muy jaamu yàlla nekk loo xam ne lii yu sell sell lay doon bokk na ci ci njariñu tur wii ne ne wa man ittaxadahu dikran fa innahu yaslamu min al amradi bi isnillahi taala wala tusibuhu afatun wala yanaaluhu aw wala yanaalu makruhan min sultaan ne bokk na ci lenn ci njëriñu tur yi ku saxal di ko zikkar ko wax lu baree baree bari ne dina mucc ci ay feebar yu baree baree bari yoo xam ne yii mën nay dal doomu aadama bi waaye tamit ne dana dem ba benn gàkk-gàkk maanaam dootu ko dal ci xolam waaye benn gàkk-gàkk dootu ko dal ci aw yaramam waaye itam dina dem ba bu nee ci biir àdduna di dund nii ñi nga xam ne ñi ñooy buuri àdduna yi lépp loo xam ne lii seenu ay la maanaam moom maanaam ne ne dina dem ba da cay mucc kon ne loolu lenn ci jariñ yi tur wi nga xam ne bi moom la soxna si laaj muy albaax yi làmboo na ko bokk na ci njariñu tur itam mu ne wa man istadaama ala dikrihi bi adadihi baada kulli salaatin mafrudatin yakunu fi martabatin azimatin inda summa inda naasi ne tur wi itam képp koo xam ne kii da ngaa saxal di ko zikkar di ko tudd di wax yaa baax yi ginnaaw jullit farata gu nekk nga di ko wax limab tur wi maanaam lu toll tur wi def ni tur toll ci ab lim buñ ko xisaabee incha allah dinaa wax uh, li nga xam ne lii mooy limi araf boo ko boolee ne lim boobu kuy def saa julee farata ba pare zikkar ko tur maanaam wax ko yaa baax ba lim ba mat ne day am daraja ju kawe joo xam ne ji yàlla da koy tànnal beral ko ko waaye tamit dina nekk koo xam ne kii ku ràññeeku la maanaam ku yëkkatiku ci biir doomu aadama yi su ko defee dañ ne tur wi nag maanaam albaaxi buñ ko waxee albaaxi adaduhu bil alifi wallaami yu saawi mia wa arbaa wa arbaina wa bi duunihima yu saawi mia wa thalathata ashara léegi kon tur wi su fekkee ne da nga doon wax albaaxi yi loolu buñ ko xisaabee maanaam buñ ko limee ci ay arab maanaam day nekk téeméer yi téeméer lim bi lay doon ak ñeent fukk ak ñeent maanaam albaaxi yi maanaam boo ci boole alif ak lam mooy àll gi tur wi day nekk téeméer ak ñeent fukk ak ñeent waaye su fekkee ne da dindi àll gi maanaam di wax yaa baaxi rek maanaam baaxi yi baaxi ji maanaam day nekk lim bi day nekk téeméer ak fukk ak ñett kon yow mi nga xam ne da nga ko sikkar nga xam ne xañ na maanaam yaa baaxi ngay wax soo ko manee saa boo jullee julli farata ba pare nga wax yaa baaxi téeméeri yoon ak fukk ak ñett ne lim boobu daal lu ama am solo loo xam ne lii mën nga ci amee ay ngëneel yu baree bare bare ak ay daraja yu baree bare ndax defe na ñi jàng arab xam nañu ne arab yi muy abajada bi arab wu ci nekk dafa am lim bu doon alif gi euh, benn la baagi ñaar la jiim gi ñett la daal gi ñeent la ba arab yépp jeex su ko defee al euh, maanaam baax yi maanaam bu doon ne yaa baax nga wax ma ne baax yi kon xam nga ne baa gi day nekk ñaar boo ko boolee ko alif gi ko xëcc mu daal di nekk ñett xaaf gi xaaf koo nga xam ne gi ñaari tomb la téeméer la yaa gi dekk fukk maanaam kon gis nga baa bi ñaar la alif gi benn la boo leen muy ñett xaaf gi muy gi muy xaaf googu téeméer la yaa googu ko xëcc mu nekk fukk soo ko boolee muy téeméer fukk ak ñett kon ne na boo ko dee si kër ginnaaw saa boo jullee julli farata daal bu fekkee ni da nga ciy bëgg a xëcc loo xam ni lu am njëriñ la loola soo ko dee def te yàlla rek tax ginnaaw julli farata gu nekk yàlla mën na laa jotale ci loola waaye tamit bu fekkee ni da fa am ay loraange ak ay loo ragal loo bëggut mu ñëw ci yow nga di ko ca puus di ko ca jiñ itam ah, boo ko sellalee tur wi yàlla mën na la ca jiñal loola su ko defee it bokk na ca nañu koy jëfandikoo bu fekkee ni da ngay xëcc njariñ maanaam da ngay tàmbalee ci lim bi gën a tuuti teg ci bi ci topp teg ci bi ci topp ba mu jeex masalan euh, bu fekkee ne da nga naan yaa baax yi ngir bëgg ca xëcc euh, njariñ da ngay tàmbalee benn maanaam mu jàll nga daal di koy waxaat ñaari yoon muy ñaareelu lim bi nga waxaat ko fukki yoon mu ñetteelu lim bi nga dog koo wax téeméer yoon boo ko boolee mu daal di nekk téeméer ak fukk ak ñett sooy xëcc njariñ ci turu yàlla wala leneen beneen sikar bu muy doon maanaam lim bu ndaw ba moom ngay jiital dog caa teg ba ca topp kon bu fekkee ne yow da koy sikkar ngir bëgg caa am njariñ maanaam bëgg caa xëcc bëgg caa xëcc pour lu jëm si ci yow da ngay wax euh, yaa baax yii muy benn bi euh, muy dañ na fii téeméer la ak fukk ak ñett waaw da ngay wax yaa baax yi ñetti yoon waxaat Euh, yaa baax yi fukki yoon dog a wax yaa baax yi téeméeri yoon su fekkee ne nag danga koy jëfandikoo ngir bëgg a dàq ay lor ngir bëgg a puus maanaam moom dañ la ci lim bu mag bi ngay tàmbalee maanaam da ngay jëkke téeméer bi teg ci fukk yi dog caa teg euh, ñett yi su ko defee dañ la loolu moom bu ne ni da ngay jiñ noonu nga koy jëfandikoo kon tur wu am solo la daal mi ngi noonu te ku ko jël di ko sikarit maanaam nga sellal ko te di ko def rek te yàlla tax loo ca bëgg ci loo xam ne lii njariñ la yàlla mën na la ko jaa defal ngir sellal nga koy sellal waaye tamit loo ca bëgg a ci lu la neexut ci ay musiba loola yàlla mën na la ko dàqal kon tur yi ngi noonu waaye turi yàlla yi ci des yépp bu ci nekk ma nga làmboo ak ay secret mi nga xam ne yi ma nga nekk ak nañu koy jëfandikoo yeneen laaj yi ci topp mu ngi jóge ci soxna Cubba Njaay soxna si ñoo ngi koy ziar bu baax a baax moom itam gis nga ko moom ndeysaan ku bëgg liggéey bi la ku bëgg lu baax la saa su ne rek mi ngi ciy bàyyi xelam waaye tamit di ci dugal ay laaj yoo xam ni dañ ciy jariñu bu baax a baax muy am laaj yu solo nag yu am solo mu yox fii ne hël mina saxiixi taxyiru lmakaani inda salaati naafilati wa ma xikmatu dalika ni muy laaja laaj bi mooy dane dañ ko nit ki daal bu dee julli comme fi mu doon naafila maanaam waru faa jullee jullik farata fa jullee jullik farata waru fa jullee jullik naafila loolu lay laaj maanaam lan moo ci wér waaw xam naa ni ñu ko ko waxee ne ko dañ ko ne waroo ko def xam naa lañ ca bëgg a jublu rek mooy euh, julli fi nga julli woon maanaam da nga fa naafila nga toppaat beneen dërëb bu la nga moom doo fay jullee loolu dafa am ay njariñ yu baree baree bari yoo xam ne yi euh, moo tax ñu naan boo naafila ci béréb danga nga war a topp euh, doog a julli waat bu dee julli farata la wala boo jullee julli farata ba pare bëgg la danga nga war a topp ci béréb boobu nga doon jullee demaat ci beneen béréb loolu dafa baax lool ndax li ma lay bëgg a wax nii mooy dane yuujadu dalilun min as-sunnati yaqulu inna hadha al amra lahu aslun sahihun ne lii muy laaj ni te boo jullee maanaam naafila ci béréb nga topp ci beneen béréb jullee fa farata ne ne nga julli farata topp ca béréb boobee jullee julli sang naafila nee dañ cee am ab tegtal bu wér boo xam ne bii mu ngi jóge ci sunna tegtal boobu dina wax ne euh, loolu daal am na cosaan lu wér wér ci sunna ci loo xam ne la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko doon def di ko digle tegtal bi mooy anin bi sallallahu alayhi wa sallam xaala a ahadukum ida salla an yataqaddama aw ay aw an yataaxara aw an yaminihi aw an mu ne waaw ndax kenn ci yéen bu jullee toog fa mu doon jullee maanaam dafa naafila ba pare toog fa jullee fa farata wala mu jullee fa farata ba pare toogaat ca même béréb ba jullee fa ay naafilaam mu ne waaw kooku moom ndax dafa am dafa lot dafa néew doole ba maanaam mënta déplacé wu ci place boobu mu neen dem ci beneen place jullee fa mu ne ne dafa ne nit loolu la yonente bi wax sambal laaj boo xam ne da caa bëgg a jàngale xam ne nit ki li gën ci moom li baax ci moom mooy fu mu naafila mu topp tuuti eh, jullee jullee foofa farata waaye fu mu jullee farata it mu daal di déplacé wu jóge ci place boobee dem feneen jullee fa moo tax mu ne kon li gën daal mooy soo jullee nga topp foofu maanaam nga topp ci sa kanam jullee fa yeneen julli nga julli wala nga topp aw ci sa ginnaaw wala sa ndeyjoor walla sa càmmeñ bu ko defee fuqaha u shafiya dañuy wax ne inna nafilata wa ghayraha yustahabu laha an yataxawala laha an faridati ila mawdiin axara li yuksira aw li yakthura mawaadiu sujudihi ne ne ñenn ci fuqaha yi waa Shaafi'i ñi bokk nañ ci ne nañu euh, bu fekkee ne nit ki dafay la wala muy julli julli farata ne bëgg nañu maanaam mu wëlbatiku maanaam mu soppeku ca béréb ba mu doon jullee la euh, dem feneen defee farata wala béréb ba mu doon jullee farata mu jóge fa dem feneen ci beneen béréb defe fa ak la ndax nee na loolu lañ ca jul mooy liñ njariñ la muy maanaam ngir sujjóot yi muy sujjóot maanaam tasaaroo ci kaw suuf maanaam bari lool ci kaw suuf yi maanaam ràññeeku lool ci béréb yu baree baree bari nee na itam wa min al xikmati fi taxyiril makaani fa innal mawadia tashhadu lahu ne dem bokk na ci njariñ boo jullee fii nga topp dem feneen jullee fa ne ne boo jullee rek maanaam dalay seere bu bés penc ba ne diw mii day julleen na fi man euh, seere la ko mu am solo lool su boobaa ak it wala lima fii min ihya il biqaayi bil ibadati te ne ne bokk na ci njariñ euh, dundal gi nga xam ne gi dangay ngay dundal béréb bi suuf yi ci ak jaamu yàlla ne loolu am solo la kon soxna si laaj ji daal bu ama am solo la ci gis nga ne ne bërëb boo jullee rek ci kaw suuf béréb boobee su bis penc ba dalay seereel te kon boo dee def boo naafila fii daal di topp dem na jullee farata feneen di ko def noonu nga xam ne saa sooy julli da ngay fexe ba béréb ba nga jullee woon doo fa jullee bu la ko béréb ba mayee neneen loolu lu am solo la lu baax la ndax day tax béréb yi nga xam ne jullee nga ko ci kaw suuf nga fa ci kaw suuf day bari lool te béréb yooyu lu mu bari bari maanaam bu bés penc ba dañuy taxaw di la seere te defe naa béréb bu ñëw di la seere ne diw mii day doon na julli ci sama kaw ca àdduna loola lu am solo ci jaam lay doon moo tax euh, ñi wax noonu ne maanaam waree suutee naafila fi jullee fa farata xam naa loola rek lañ ci bëgga laay biir ngir euh, nit ki daal bu jullee ci béréb su ko ko béréb ba mayee mu daal di topp daal di dem ci benn béréb daal di fay jullee geneen julli ga muy julli ngir solo soosu ci nekk ak njariñ yooyu waaw yeneen laaj yi ci topp mi ngi jóge ci Serigne bay Diagne waaw moom itam xam naa day làqatu rek waaye ci gaa yi la bokk daal xam naa moom eh, day làqatu rek waaye ndeysaan jëmm ju baax ci lañ ko xam mu di ko dund ñu xam ko ci ñoo ngi koy ziar bu baax a baax moom itam daa jëwaat rek ci yittewoo gu yittewoo liggéey bi moom itam di ci def ay leeral yu ama am solo dugal fi ay laaj ne dafay laaj ne ndax ñaari rakka yooyu nga xam ne moom lañ tuddee ñaari rakkay fajar euh, lan lañ ci war a jàng maanaam yan saar lañ ci war a jàng ginaaw fatiha ndax na ne dafa am ñu ne nañ ci jàng xul yaa ayyuhal kaafiruuna ak xul huwallaahu ci benn maanaam rakka bu jëkk bi ñu jàng ca fatiha ak xul yaa ayyuhal kaafiruuna beneen bëri ñu julli ca fatiha ak qul huwallah ne ne loolu dégg na ñu ko wax waaye tamit am na ñoo xam ne dañ ne naana mën nañ cey jàng fatiha dong waaye tamit dañuy gis ci mbindam sëriñ Tuuba muy wax ne nañ ca jàng ñaari alam alam yi muy alam nashrah laka sadraka ba mu jeex ak alam tara kayfa faala rabbuka ba mu jeex waaw foofa lañ ko fay laaj lañ ko fay wax mooy euh, euh, ñett yi de xañ na jàng faatixa gi rek day mooy ci doon li nga xam ne xañ na war nañ jéem a defaat ab gëstu ba xam waaye ñaari de moom yépp a jàll ndax euh, bu fekkee ne xul yaa ayyuhal kaafiruuna jee ak xul wallaahu ji loolu moom yonente bi daana ko jullee Eh, ñaari rakka yooyu bu ne na ci wàllu fatiha ji dong lay tamit eh, sayyidatuna Aïcha eh, wax na ne yonente bi day bu daa julli julli ñaari rakkaay fajar léeg mu gaaw gaaw boo xam ne bii da ngay xam naa dangay yaakaar ne sax xañ ne jàngul fatiha ci sax ba mu ak ndax day gaaw lool kon mën naa am am na jamono yoo xam ne daf na yem dong ci fatiha ji noonu su ko defee ñaari alam alam yii ne tamit moom la sëriñ bi wax maanaam nam ko waxee ca masaalikul jinaan maanaam euh, lañ cay bokk na ci lañ ca mën a dégg mooy sëriñ bi dafa wax njariñi ñaari alam alam yi koo xam ne ki jàng nga ko ci ñaari rakkaay fajar yooyu ndax ndax lam wax mooy waman alam alam fiha amin min kulli aada in lam amin la wax ne ku ca jàng ñaari alam yi daal dina am kóolute ci bépp yéppi noonu yi nga xam ni maanaam dañuy lore kon defe naa ñaari alam alam yi maanaam sëñ bi euh, njariñal ko ci ñaari euh, rakkaa yooyu la wax ko defee euh, muy laaj ndax moom loolu mu wax noonu daa am fu mu ko toxale wala da ko xam dafa doon xam-xamam boppam rek la dañ ko cay wax ne ko sëriñ bi booy xool masaalikul jinaan ca tàmbali ba ba muy def tarjumaan ja di waaj a dugg ci téere bi da caa leeral téere bi nam fay deme boo koy xool nag lépp da ko delloowaat ca mag ña eh, ñi fi jiitu woon nga xam ne dañoo peegan xam-xamu diine yi doon ko dund xam-xam yooyu demoon ba rab bay bëgg a sànku bay bëgg a euh, réer sëñ bi jëliwaat xam-xam yi ñëw beesalal nga xam ne suñ moom mu jaddit la bu ko defee booy xool masaliku jinaan sëriñ bi dafa wax ñaari xaala ak ab xultu ba muy tàmbali téere ba dafa leeral wax wax ju am solo ne saa bu ngeen déggee ci masaalikul jinaan ma ne xaala te tudduma ka wax wax ja maanaam xaala mooy wax na ne ne saa bu ma nee wax na rek te waxuma tuuru ka nga xam ne kii moo wax yow mi jàng téere bi na xam ne boo wax joojee al imaamul Ghazali laa ci jublu maanaam ay waxam laay wax ne ne saa bu ma xaarata mooy wax na te tudduma tuuru ka nga xam ne kii moo wax na nga jàpp ne yow imaamul Ghazali ay waxam laay wax waaye ne geneen xaala gi ci te mu ne saa bu xaala nara wax jeneen wax joo xam ne jii al imaamul Ghazali waxu ko ka wax wax joojee damay tudd aw turam maanaam dama na diw nee na ci biir masaalikul jinaan waaye tamit ne saa boo gisee ci masaalikul masaalikul jinaan yi ma wax xultu ne ne famin maani xawlihim naqaltu da nga xam ne saa boo déggee nag ma wax ci biir masaalikul jinaan suñ bi ne ne saa boo gisee baatab xultu te mooy maanaam wax naa ne ne na nga xam ne maa ngi ko doxale ci seen maanaa wax ya kon defe naa ñetti wax yépp buñ ko settantalaatee ak liñ ci war a mën a déggee mooy defe naa lépp da ko dellawaat ca mag ñooy nga xam ne kon mën nañoo gis ne daanaka Masaalikul Jinaan li ci ëpp ay xadis la yoo xam ne yii da ko tëng ci ay bayit waaye tamit gis nga mag ñooñu mu jël seeni xam-xam yooyu nga xam ne dafa ràppan ñëw daal di koy beesalaat euh, daal di koy dugal foofu ba gis nga Masaalikul Jinaan sax am nañoo xam ne buñ koy bind Euh, da nga gis ñu jël ay xadis maanaam bayit yi buñ ko waxee fekk ab xadis la tombel maanaam ñu bor xool ko ci biir mbind mi daal di indi xadis boobee kon foofu it mën nañ fee dégg ne kon euh, fële muy wax ñaari alam alam yee euh, dafa wax njariñ la sax waaye waxut maanaam nañ ko ca jàng waaye dane ku ko ca jàng daal di lay wax njariñ la kon nañu ko déggee noonu nga xam ne bu ñu seetantalee xaala ñaari xaala yooyu wax ak xuldu ya lépp day dellu ca euh, mag ñooñu rek nga xam ne moom da doon di yeesal diina ji waaye tamit daanaka dikkute nag lépp loo lenn loo xam ne maanaam lu mu beesal ci diina ji la beneen laajam bi ci topp dafay wax euh, maanaam wàllu yalu ak biral ci koo xam ne kii day liqaab liñ ko fi wax rek mooy fal mashruu fi l iqamati al jahru biha sawaun kaana munfaridan aw jamaatan ne daal euh, liqaam moom muy taxawal julli la cay suna maanaam la ca charia wax mooy bu dee nit ki moom dong nga ànd julli bu dee liqaam la ko wax ca kaw waaye itam bu fekkee ni mbooloo la itam kay liqaam la ko wax ca kaw kon liqaam moom liñ ci gëstu xam ko ci li ci fuqaha yi wax mooy euh, kii liqaam daal da ko war a biral wax ko ca kaw waaye maanaam waree su ko yalu kon boobu it moom loolu lañ ci wax muy liqaa moom dañ ko war a biral waaye waree su ko yalu waaw moom itam xam naa loolu len itam la ci li nga xam ne moom la doon laaj ci wàllu boobu yeneen laaj yi ci topp sëriñ diir moo koy laaj moom itam bi ci jëkk day laaj ne ne almaratu allati taamalu lirrijali alladina balagu sinna shayxuuxati wa taquumu hadihi bi xaslihim hal haza jaizun am laa day laaj ne dafay am ay soxna yoo xam ne dañ leen di jël ñooñu nga xam ne ñu dañoo dem ba màgget daanaka mënalatuñ seen boppu dara te doon ay góor soxna sa ñu jël ko mu dem di léegi ca ñoom maanaam di leen dimbali di leen jàppale ba àgg ci sax maanaam da leen di sang muy laaj nag lu ci sharia wax waaw foofu it lañ ko cay tontu day ci li gëstu mooy dañ ne al aslu fi ghaslil mayyiti an yaxsila ar rijaalu ar rijaala wan nisaawu an nisaa sëñ bi alfuqaha maanaam diggante góor ak jigéen ñu ñu araamante eh, lislaam dafa fiir ci seen diggante lool lool ba ca néew ba moo tax gis nga bu ñuy wax sax wàllu sang wàllu sang maanaam du ñu wax ñiy dudd waaye day wax néew ya ne na daal li ñu xam ñun bu fekkee ni nit ku faatu la bu dee ay eh, góor la na ko góor sang maanaam bu dee jigéen la na ko jigéen sang kon yaakaar naa bu fekkee ni néew lay wax ne nii lañ leen war a sangee buñ dee dund góor ak jigéen jigéen wërta dem di sang góor ak nu mu mën a demee ak ku mu mën a doon loolu baaxut loolu sariyaan nangu ko bëgg ko te it maanaam eh, daray àdduna nag jaru ko ne ne wala yajuusu lil mar'ati an taxsila la wala rajulu yaxsilul marata walaw kaanal mayitu kabiran fi sinni wa minal maxaarim gis nga ci li wax ne maanaam ñooñu sax ñu màgget lañu gis nga ne ne fii ne duñ may jigéen gi mukk muy sang góor gi wala góor gi di sang jigéen gi doonte maanaam néew bi nga xam ne bi dañ ko war a sang dafa nekk ku mag ku màgget waaye itam nekk koo xam ne kii sax maanaam ku ama araamanteen ak moom uh, laal waru ko waru ñoo sang waru ko waru ñoo kon defe naa ki ne néew ya bu dee góor la bu mu sang jigéen bu dee jigéen la bu mu sang góor defe naa uh, buñ dee dund kon moom da koy wax da ko waxu ko da koy jël te ne kon daal loolu lañ ko fay wax mooy uh, loola daal wax dëgg yàlla moom sariya nungu ko ndax diggante góor ak jigéen moom jigéen dem di sangu góor moom wax dëgg moom mbir mu doy waar la mu yéeme moo xam ne ni wax dëgg loolu moom charia du ko nangu moom wal waajibu isa lam yujad man yaxsiluhu an yamamma na ne dem na sax ba ci nit ki fu mu faatoo bu dee góor la te gisuñu góor gu ko san sang eh, nañ ko tiimal bu dee jigéen la te gisuñu jigéen gu ko sang nañ ko tiimal tiim boo xam ne bii ka koy tiimal sax maanaam day am lu muy laxas ci loxoom koy tiimal kon euh, ki koy tere terekat bu ñu faatoo yaakaar naa buñ dee dund euh, ca lay gën a garaawe ca la terekat yi gën a nekke loolu baaxut loolu daal ku yàlla dogal nga am mbokk moo ca nekk moom boo ca manee dara moom mooy boo rek euh, nga jéem ko ca génne baaxut waaw su ko defee benn laajam bi ci topp mooy dane ki ñu fase fase mu dog te mooy fase nañ ko ñetti yoon ba diggante boobu jeex léegi nag xañ na mu dem ba ci yàgg si moom soxna si eh, bëgg maanaam mu bëggaat kooku ko fasewan te it du mën a delluwaat ci moom ngir ndax dañ noon eh, nit ki buñ ko fase fase mu doog moomu mooy soxna si bala ñoo mënati séyti moo kooku ko fasewan day dem ci keneen mu takk ko ba kooka bàyyiwaat ko muy doog a mën a ñëwaat di sëy see kii léegi nag ne ne kii moom dane day dem fexey wut góor gu ko takk waaye dina fexey ba su ko takkee daal buñ doxee ab diir lu toll ci ñetti weer sax wax na ko maanaam mu fexey tas ca waajoojee euh, daal di demaat nag waa jee ko fase maanaam mu daal di cay dellu mu takkaat ko muy laaj loolu moom lan la ci sharia wax dani euh, almutallaqatu talaaxan baa inan baynunatan kubra turidu an tatazawaja bi rajulin wa niyatuha adamu istimraari hada alzawaaj xaytu annaha tuxaawilu baada hada alzawaaj an yutalliqaha hada alrajul li tatazawaja maratan uxra bi zawji awal loolu mooy laaj bi mooy loolu la laaj dégg kon lañ ko ca tontu mooy dane isa talaxa rajulu zawjatahu thalathan lam taxil lahu xata tankixa zawjan axara nikaaxa rëxbatin la nikaaxa taxliilin suma yu faarixuha ne ne nit ki bu fasee soxnaam fase moom nga xam ne mii seen diggante jeex na nga xam ne passé mu dog la ne ne soxna su dootul dagan ci moom lu dut ni keneen da ko takk takk koo xam ne gii moom waaja da koo gis rek bëggu ko soxna si bëgg ko ñu may ko ko maanaam te jubluñu ca leneen maanaam jubluñu ca di ca def ay falaa falaa yoo xam ni dañoo bëgg euh, diggante ndaw si ak ka takkan euh, daganati ndax loolu wax mooy nikaax rërbatin dañu takkante takk ak dañoo bëggante rek te fas yéene sëy waaye laa nikaaxa tax li waaye doonu takk goo xam ne gi takk ak daganal ko waaje ko yoroon la kon loolu euh, mooy li nga xam ne lii moom la nit ki war a def am euh, nikaaxa la war a doon bu dee nikaaxa taxliil la muy te mooy takk goo xam ne gii euh, takk ak bëgg a daganaa la diggante ba la nenee dafa araam xaala sallallahu alayhi wa sallam laana allahu almuxallila wal muxallala lahu yonente bi ne ne koo xam ne kii da nga gis jigéen koo xam ne gii dafa tas maanaam tàggoon ak jëkkëram tàggoo goo xam ne gi passé mu dog la nga ne naa ko takk su ma ko takkee daganalal ko daganalaat ko waa ji maanaam dama koy takk su amee diir ma wacc ko ne ne yàlla nga koy rëbb di rëbb ka nga xam ne kii moom la ko bëgg a daganalal waaw loolu la wax de laanallaahu almuxallila walmuxallala lahu ka koy bëgg a takk takk ak daganal ko waajee ak waajooju mu bëgg mu daganaat ci moom ne ne ñoom ñëpp bu fekkee ni loolu ñu wax la baare yëgoo la ni ko wolof di waxee googu takk dafa araam googu takk dafa araam kon nañu xam ne fa haza nikaaxu taxliili muharramun wa baatilun fi xawli aamati ahlil ilmi dégg nga takk euh, googu daal gu araam la te it goo xam ne gi baaxut la maanaam suñ ko ko mayit maanaam du baax maanaam kon dañ ciy daal di dégg ne euh, bu fekkee ne dañ ne may dem ndaw sa dem na ñu may ko keneen te loolu la ci jublu woon lu ñu fa nekk di sëy di ko jaxasoo it ak njaalo lay doon ndax takk sa amu fa baaxut ne nag lii ci la borom xam-xam yépp d'accord ne googu takk daal baaxut te ne wala taxalu bihi l maratu li zawjiha al eh, bu fekkee ne yéene ji la ba ñu may ko koy ne ne du tax maanaam jëkkër joojee bu ca delloo mu dagan ko baaxut daal dañuy fedd li saa su ne maanaam googu takk daal baaxut kon googu takk nañ ko moytu bu baax a baax baaxut beneen laaj bi ci topp soxna Ngoné Gaye moo moom itam nee dafay dégg ne dafa dégg ñu ne ku julle shafaa ak witr ak witar waratoo génn sa kër di dem fenn muy laaj ba xam loolu moom euh, nan la ci sharia wax xaalat laaj bi mooy xaalat innaha samiat annahu la yajuuzu liman salla shafaa al an yaxruja min baytihi xata tatluwa shams dégg nga ci ne ne laaj bi ne ne dafa dégg ñu ne Eh, ki julli safaak wiitar daal waratul a génn këram lu dul ni maanaam jant bi dana fenk loolu moom lañ ko ci wax dañ ko naan haza la dalil lahu min as-sunnati wa ijmaa'il ulama jooju wax amul benn tegtal boo xam ne bii dañ koy mën a tegtaloo ci sariya du ci alxuraan du ci sunna du ci borom xam-xam itam kon wax la joo xam ne jii deesu ko jëfandikoo su ko dégg maanaam ku julli safaak wiitar euh, waratoo génn sa kër ba jant bi soo amut ab tegtal loolu ay waxi kasaaw kasaaw la rek du lu ñuy jàpp kon dañuy moytu yu baree bari ci wàll yooyu maanaam lu am solo la nag muy laaj bu am solo ndaxte lu war a tasaaroo la ndax lii wax yu mel nii bari na lool lool maanaam euh, ñoo xam ne ñi dañu ko gëm di ko wax nit ñi ñu koy jàpp te loolu du tegul fenn loolu mos defe naa ko am sam xel di xalaat defe naa eh, war ngaa xam ne loolu moom tegul fenn ku julli sa waaw te doo génn sa kër ba eh, jant di fenk moom eh, defe na waxi ku xamut la muy wax la wala mën naa am sax nag yeneen la ci jublu yoo xam ne du nekk loo xam ne li lu dëppook lislaam la kon eh, yooyu du wax yu ñuy téye di ko jàpp yeneen laaj yi ci topp Samba Fay moo koy laaj boroom xikmatul yow mi émission bu am solo boobu nga xam ne mbokk yaa ngi ci def ay taalixaat di ko euh, leeral leeral gu am am solo loolu lu ci am am solo la comme ni ko sama jarbaat boobu waxee rek njuufeen boobu sëñ Mouhamadou Diouf xam naa moom xam na secret buy loolu mu wax ne xikmatu mën na mën nañ ko misaal ci wuy rek maanaam nit ki day dem sàkk buy ñëw indi daal di jalal gaay yi ne ci gaay buy baa ngook su ko defee gars yi moom bu ñu tojee wuye rek maanaam mën a tasaare séddale euh, lañ ci ca lañ cay lañ ci la ca def ñu seddale ko gars <laughs> yëpp yëpp njuufeen yooyu gis nga ko euh, sa xaadim ñi ngi moom itam ñi ngeen bi daal di jaar foofu moom itam daal di séddale bu baax a baax a baax ko defee kon noonu rek mooy xikma maanaam yore émission yi moom euh, mën na cay bañ a sori man nay wax wax ju maanaam tënk boo xam ne bi daal da koy tënk su ko defee borom xam-xam yi moom dañ koy gën a mën a leeral yaatal ko bu baax a baax comme ni ko sëñ Xaadim defee noonu ak ni ko sëñ Mourou Badiane defee euh, noonu ko mun sëñ Mourou wax rek noonu lan waaw tabarkalla macha allah yal na yàlla doolu daf yooyu bu baax a baax a baax waaw sëñ Samba dafay laaj xam na lu jëm ci wàllu azaka moom itam xam na euh, jàllale nañ ko fi ñaari yoon maanaam am nañu ñaari fatwa yoo xam ne bu ci nekk euh, amoon azaka su ko defee tey xeet laa ci xeeti asaka yi maanaam ci lan ak lan la ñuy génne azaka ak maanaam nan la alal di tollu ñu war caa mën a génne asaka waaye bu fekkee ni mat na lu ñu war a génne asaka it lañ cee génne asaka nu muy tollu ak nu koy génnee lañ ko cey jëkk wax mooy azakatu xukmuha rukun min arkaanil islaamil xams wa fardu aynin ala man tawaffarat fihi shurutu wujubiha ne ne e, azaka li ko boroom xam-xam yi àttee benn ponk la boo bi ci ponk yi lislaam yi lay bokk dama ne ku jàng arkaanul islam di fa jàngale zakat ita u zakat ne kon ci ponk yooyu la bokk juróomi ponk yooyu waaye tamit nee na farata la joo xam ne ji ku ko man maanaam ku sarte daje ci yow rek maanaam da nga ko war def kenn waru la koo defal mooy fardu aynin la farata jëmm la ku ko man dong ko war a def sarte ya daje ca yow sarte yak nee nañu mooy alxuriyatu al milku taamu lin nasab tamaamul xawli maji u saay in kaana ak adamu dayni na sarte ya nag mooy nit ki moom boppam waaye tamit la cay doon nisaab ca alal ja moom moom ko moom dong xam ne du ko bokk kenn waaye tam bokk na ca charte ya alal ji am ci yow lu matam at waaye tam bu fekkee ni fu ñuy attewoo ci lislaam la nga xam ne dañuy teg ay nit ñoo xam ne ñi su waxtu wa jotee ñu ñëw di ko su ñëwee di ko laaj si day bokk ca charte ya waaye tamit bokk na ci charte ki war a joxe asaka mooy maanaam bu mu am bor boo xam ne bi su ko génnee dootul mat nisaab kon lam doon laaj la ca bokk na ci muy anwaawuha mooy xeet yi nga xam ne yi ci lañ wara a génn azaka bu dee ak jur la bu dee mbay la mu naam ci annaam la ak alxarf ak alaynu maanaam yennti jur yi moom la ñuy génne azaka ak mbay ak euh, xaalis bu fekkee ni euh, annaam wala war nga ñu dee ko détail mu tàmbalee ci alaynu alaynu mooy azzahabu wal fiddatu maanaam bu fekkee ni ci wàllu xaalis la dañuy wax or ak xaalis maanaam azahab bu dee ni nit kuy yëngu ci or la ak azahab bu dee ni ci eh, ku yëngu ci xaalis ak xaalis bi nga xam ne bii moom la ñuy jëfandikoo eh, bu ko defee xaalis ak or boobu maanaam la ñuy wax urudu tijaarati da cay dugg maanaam ki nga xam ne kii ab commerçant la di jaay moom itam incha allah buñ ci àggee dinañ ko wax euh, commerçant bi nan lay war a génnee zakaam kon daal bu dee ci wàllu xaalis na moom or la ñuy wax ak xaalis ak marchandise moo xam ne mii dañu koy xayma bu dee ci ak jur la itam xeeti jur gi nga xam ne gii moom lañu war a génne asaka mooy al ibilu al baqaru ak al xanam mooy gileem ak nag ak ay jur gu gàtt mooy bëy a xar la ñetti xeet yi daal lañ ne moom maanaam bu dee ci jur gi moom la war a génne ci la war a génne asaka muy giléem ak euh, nag ak ay bëy ak i xar ay bëy xar nag moom maanaam euh, bu ñu matul nisaab ay xeet lañu dañ leen di boole maanaam dañ leen di boole nga xam ne da leen di boole bu ñu matee nisaab nga génne leen azaka su ko defee bu dee ci wàllu jur gi la euh, bu dee ci gileem ñaata gileem leen kiy am war caa génne azaka mooy nisaab bi muy laajaale mooy al ibilu min xamsi ibil ila tesin chat daxarat nit ki bu fekkee ne ay gileem la yor maanaam nisaabab gileem mi ngi tàmbalee ci juróomi giléem ba ca juróom-ñeenti gileem loolu mooy nisaabab gileem nit ki boo amee juróomi giléem na xam ne asaka war na ca génn su ko defee maa ngi cee war a génne benn gàtt boo xam ne bii eh, am nam at ba dugg ci ñaareelu atam loolu mooy doon asakaay juróomi gileem ba ca eh, juróom-ñeenti gileem ya loolu nag ab jadwal bu gudd la boo xam ne bii ñuy jàng fekkax buñ ko toppee des na yeneen noonu la di toppal lim bi ba ba mu jeex bu dee ci jur gu gàtt ga la muy bëy xar na ne min arbaina ila miatin wa ashrina shaatun daxalat thaniya ne bu dee ay bëy xar nga yor nag li tàmbalee ci ñeent fukki xar wala ay bëy wala boo leen ba ci téeméeri xar ay wàkki bëy ak ñaar fukk soo ko amee la nga ca war a génne mooy benn gàtt boobu moom itam boo xam ne eh, am na at ba dugg ci ñaareelu atam kon yor ay bëy ak xar ba mat ñeen fukk foofu la nisaab ak bëy xar tàmbalee maanaam bu fekkee ni ñeen fukki xar mat na ko nisaab la ca bu fekkee ni ñe mat na ñeen fukki bëy nisaab la ca bëy bu fekkee ni matuñu ko ñoom ñaar nga boole leen ñu mat ko nisaab ba ma nga tàmbalee ca ñeen fukki yooyu bu dee ci nag la eh, albaqar من ثلاثين إلى تسع وثلاثين تبيع دخلت ثالثة ne bu dee ay nag la ki yori nag su amee fanweeri nag na xam ne maanaam mat nam nisaab su ko defee nisaab boobu day génne benn gàtt boo xam ne bii maanaam euh, weesu na ñaari atam bu dugg ci ñetteelu atam bu ko defee loolu mooy doon nisaab fanweeri nag ba ca fanweer ak juróom-ñeent euh, benn gàtt rek boo xam ne mi ngi dugg ci ñetteelu atam maanaam moo doon euh, am nisaabam kon xeeti jur yi mi ngi noonu muy giléem nag ak bëy xar bu ko def bu ko defee alxar moom moo cay def muy mbéy mu ne alxubuub lañ cay génne asaka mooy astimaar at tamr zabib su ko defee ñun yaakaar naa li mu wax fi mooy dugub lañ ci am a gerte su ko defee euh, nisaabul xubub moom yu saawi sitt sabon mi wa kilo kilogramme kay béy dugub bu amee euh, juróom-ñaari barigo dugub ak juróom fukki kilo loolu mooy nisaabam ba su ko defee bu amee loolu ci dugub lam ci war a génne mooy al miqdaarul waajib ixraajuhu al us al ushru in suqiya bil matar ak nisful usri in suqiya bi alatin kiy bay dugub su fekkee ne taw bee ko rooseel dugub ja ba mu bay ko ba mu sotti taw bi la ñor su boobaa day def fukk yu mu wàññi dindi benn ba teg ne ne si masalan bay nga sa dugub def ko ay takk maanaam boo ko defee takk soo takkee fukki takk da génne benn takk teg fekkee ne ay sebaar la boo wàññee fukki takk génne ca benn teg ne bu fekkee ne da nga ko bojj ba pare itam fukki kilo yoo natt génne benn ba teg ko ne ba mu jeex ko defee bu fekkee ne kuy ler la itam buy ler day suurale bu dee fukki mètre la def leer gi mu xaaj benn mètre bi di def foofa muy tolloog leer ga su ko defee bu dee wàllu dugub gi la eh, noonu la koy génne asaka bu fekkee ni taw ba ca la ko béy waaye bu fekkee ni da ko doon roose maanaam di yor ab robinet ak yooyu wala muy wëgg ci teen di ko roose ba dugub ja ñor moo am ca nisaab bee te mooy 750 kilogrammes mu juróom-ñaar fukki kilo juróom moom itam euh, par liibar lay génne bu doon ni ay takk la masalan dañ naan xaaju takk lay doon bu dee sibaar la mu daj di ko dindi benn takk ba bu dee ne fukki kilo la natt mu dindi liibar noonu la koy defee su fekkee ne da ko wëgg ci teen wala mu roose ko ab robinet su ko defee kon loolu mooy lenn ci li nga xam ne mooy xeeti euh, yi ñu war a génn asaka ca jur ga ak bu dee nii mbay mi la yañ ca war lañ ca war a génne asaka waaye itam bu dee ne xaalis la moom itam euh, yiñ ci war a génne asaka mooy xaalis ak or lay doon ak ki nga xam ne kii day jaay euh, day tëj butigam wala njaayam xayma la nga xam ne lii moo ne ca boutique ba ca lam ko jënde woon mu boole ko xaalis ba mu yor xam naa incha allah dinañu ko wax euh, kooku nan lay war a génnee nu nisaab bay toll bu demee xaalis la ak or su ko defee buñ delluwaatee fale ca asaka ci wàllu xaalis wa dañuy wax di un nisaab min mi'atay dirhamin ila gaayatil mablax min al ne ne nisaab daal bu dee xaalis la mi ngi tàmbalee ci ñaar téeméer ba ja toll yow mi yorul ñaar denc ko ren ba déwén incha allah eh, xamal ne foofu la xaalis tàmbalee waaye nag eh, nu xaalis ba toll rek da koy xayma génneel ko asaka bu ko defee dina la wax eh, nisaabu xaalis ñaata la doon maanaam nisaabab xaalis rubuul ushri lay doon maanaam dix euh, deux virgule cinq pour cent dix euh, deux virgule cinq pour cent mooy nisaabab xaalis masalan mille francs daal vingt cinq francs mooy euh, asakaab su ko defee dañ lay wax misaalam bu dee ni or ngay liggéey nga xam nga or lañ koy jaay par gramme bu ko defee nisaabab zahab maanaam li nga xam na lii maanaam bu ko or matee asaka war na ca mooy quatre-vingt-cinq grammes la bu dee ni xaalis la euh, lay nisaaba maanaam lay tax asaka war ca mooy cinq cent quatre-vingt-quinze grammes mooy nisaaba xaalis xam nga am na ñoo xam ne ñi dañuy liggéey or di ci def ay chaîne di ko jaay par gramme bu dee xaalis la am na yoo xam ne dañuy liggéey ci xaalis maanaam di ko peese di ca jaay ay lam ak ak chaîne su ko defee nisaabu dahabi xamsun wa samanuna garaaman wal fiddatu xamsu miatu garaam waaw bu dee or la ki am 85 grammes xam na xam ne war na caa génne waaye bu dee xaalis ki am 595 grammes na xam ne war na caa génne asaka bu ko defee nu ñu génnee asakaay nu ñuy xayma or ngay xool dane falaw anna seeral garaam min dahabi yusaawi alf dirhamin eh, maanaam dafa bëgg wax ne su fekkee ne da ngay yor or da laaj garaamab or lan lay jar mu lay jox misaal ci maanaam buñ la noonu fi ne daal gramme or mi ngi jar dix mille francs kon dix mille francs yi moom nga jël multiplier ko quatre vingt cinq yële moo doon yee moo doon mooy nisaab quatre vingt cinq nga koy multiplier soo ne quatre vingt cinq fois dix mille dala jox huit cinquante mille ci xaalis nga daal di jàpp yow mii kat ren ji or bii ma yor nii fi mu ne nii maanaam <clears throat> huit cent cinquante mille la ne nii maanaam kon bu fekkee ne loolu dong nga ci xaalis. huit cent mille yi ci ngay génnee sa asaka su ko defee huit cent cinquante mille ni ñuy génnee asaka ngir yoon wu mooy boo ko diviser maanaam boo ko séddalee quarante rek résultat bam la jox mooy nekk asaka mooy nekk asaka ji bu dee ci xaalis yooyu yëngu itam di ca di ko jaay par gramme cent quatre-vingt-quinze gramme mooy nisaabab xaalis su ko defee da wax ne eh, yow moomu yor xaalis boobu di ko peese nga am ci cinq cent quatre vingt gramme bu fekkee ne dañ la ne benn garaam xaalis bu nekk maanaam 500 lay jar ci marché bi mu ne nii da ngay def 500 fois 595 loolu boo ko defee da lay jeex 297 500 297 500 la lay jox nga xam ne yow nga xam ne lii nga ci xaalis kat di ko peese nii. Euh, buñ ko jaayantee ci marché bi mi nekk deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cent francs nga xam ne bii maanaam ngay xayma boo ko diviser quarante euh, résultat ba lay jox mooy nekk euh, li nga xam li moom nga ci war a génn ci asaka kon xam naa nañu ko toppaat xoolaat ko bu ko defee dama ko tënk lool ndax am nañ ci ñaari émission yoo xam ni jàll na kon loolu daal mooy xeet yi nga xam ne ci lañu war a génne asaka bu ci nekk tamit lool di nesaabam waaye dem nañ ci génn ci asaka it bu ci nekk mooy loolu beneen laaj bi ci topp te defe naa mooy bi mujj tey ci laaji fatwa bi ñu ngi jóge ci sëriñ Njaga Caw suñu rek ku ju baax yoo xam ne lu baax rek lañu xam ci moom nekk nag moom fële ca parc Touba Lambaye buntu Pikine ak magam Alassane Caw ak Moustapha Caw ñu ngi leen di ziar bu baax a baax Njaga Caw moom itam ndeysaan ku bëgg lu baax ñu ngi ci tukki ba yal na leen yàlla doole defal tawfiix ba ñu eh, eh, moom itam dafay laaj ne xokku eh, man tantaabuhu lahazatun lahazatun xaybu biya lahazatun lahazatu biyatin naam day laaj ki nga xam ne kii maanaam day daanub jël te ne leen xam nga jël dafay mel ni xëm lay doon ak jël mooy comme nga dégg loo xam ne lii lu mel ni ak waaraate la maanaam boroom xam-xam buy waxtaan ci waxtaan wu am solo di delloo nit ñi ca yàlla am lu mu def ci sab xol ba nga maanaam nga sori daanu la nga dégg alxuraan ñu koy jàng daan wala xasida yëg yu mel noonu lay laaj loolu dafa awa xëm eh, muy laaj ba xam ndax euh, ki toll moom maanaam nga xam ne dafa daanu jël loolu maanaam dina yàqam jàpp wala déet dañuy wax ne foo loolu moom fii tafsirun loolu daama teqale ndax euh, ay point la ay ay ruq yu ruqaan yu xaw a sew la yoo xam ne yi faaw ñu di ko taqale di ko leeral mu leer lii muy la nii mooy jël bi ne na ida kaana al laa yusilul waaya wala yamnaw al ixsaasa bi wujudil hadi hadaf fala yadurru kan naais allazi yasmau alxarakata laa yadurru ata yaalama annahu xaraja minhu sheyun ne ki nga xam ne kii ab jël da koo dikkal su fekkee ni jël ba jël bu yem la tàggalee ko ak sago maanaam dem mi ngi daanu waaye tàggoowut ak sagom ba am xelam dem nga xam ne jël boobu muy daanu terewut maanaam am na bu yëg-yëg ci liy xew mi ngi ko yëg di xam di ko ràññale ba nga xam ne maanaam mi ngi ànd ak am xelam daal jël ba soreegut ba tàqale koo am xelam ne su boobaa loolu du yàqam jàpp maanaam mi ngi mel ni bu gëmmentu woon te bu muy gëmmantu na mel ni day nelaw mu ngi dégg yëngutu yi nit ñi yëngu euh, tayit bu dara génne woon ci moom loo xam ne li lu yàqam jàppam la mu yëg ko ne ne su boobaa loolu yàq jàpp kon daal borom jël bi nga xam ne bii xañ na jël ba soriwut ba taqale ko ak sagoom ba yëgatul dara xàmmeetul dara nga xam ne bu mu jàppam tojoon sax du ko yëg maanaam bu àggagul foofa maanaam njàpp ma du yàqu waaye nag su demee ba jël ba saaraan nag ba mu tàggoog sagoom nga xam ne amatul lenn lu muy yëg ci wàllu nit ñi yëngatu mënatu koo ràññee nga xam ne toll na ci jël bi foo xam ne fii bu dara génne woon ci moom dama ne du yëg génn na ci moom su boobaa moom njàpp ma day yàqu bu jëlle ba àggee foofee njàpp ma day yàqu kon daal ab jëll daal su fekkee ne bu yem la tàqalewut boroom ak sagoom maanaam am xelam réerut nga xam ne mi ngi yëg ba nga xam ne bu mu njàppam tojoon sax dina yëg ne toj na bu boobaa njàpp moom feeg loola dalu ko ca baax na tojut waaye nag su demee ba saaraan ba ba nga xam ne moom tàggoon ak sax nga xam ne mën naa am ba bu loo xam ne lii toj na njàpp du ko yëg su jël bàggee foofee ne ne su demee ba ba jël dañ na dem jàppiwaat am jàppam yàqu na ndax ne ne fa haza yantaqidu kal ixma kazalika al musaabuuna bis sarai ne ne jël bu demee ba saran ba àgg ci nit ki tàggoog sa ne ne moo xëm ñoo yem te xëm dafa bokk ci li yàq yàqam jàpp ak mandi mandi tey dafa bokk ci li yàqam jàpp kon ak jël itam bu demee ba ta ba nit ki ko ak am euh, am jàppam day daal di yàqu ne ne itamit ñi nga xam ne ñi dañoo am jëllam loolu ñuy wax ay affaire seytaane ak yooyu itam mën nañ noonu lañ ko mën a waxee ne ne ñoom itam seen jël bu saaraanee ba dem ba xamatuñu dara bu ñu yoreem njàpp njàpp ma yàqu na ñoo ngi taxawlu fii di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu doo jàppale ñu jéggal ñu doolu ñu dimbali ba lépp lu ci jub ñu di ko sante euh, di ñaan mu nungul ñu ko defal ñu tawfiix faj ñu suñu aju zaahiru baatin waaye lépp lu ci njuumte rek maanaam luñ ci yëgu luñ ci yëgut euh, mu jéggal ñu ko di jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu dellu di ziyaare ñëpp rek di ñaan yàlla doolu ñu defal tawfiix jërë ngeen jëf wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam